ñu jàll euh, tout suite euh, ci euh, Job Job Job Job Job Job <laughs> Diop Diop 7h21 ñu leen ni mën ngeen ñu yónnee seen ay CV bu fekkee am na lu ngeen xam am na lu ngeen jàng ngeen nekk ay chômeur bëgg liggéey et puis ñu ngi ñaan itam ñi nga xamee ni euh, ñoom ñoo yore liggéey yi ci réew mi bu ngeen seetaane yeewu leen ba dégg ñu joxe annonce ku ngeen soxla ci xale yi ñuy joxe seen parcours ak seen i CV euh, mën ngeen leen a contacter directement parce que loolu rek lañ ci bëgg moo tax ñu bëgg Sénégal xale buy xëy rek di jóg di job comment faire pour euh, ñu jot sa CV ba jàllale sa annonce gratuite gratuitement. Euh, c'est très très simple Pape Cheikh ku bëgg euh, ñu jàllale fii sa annonce peut-être nga am si liggéey mun nga ñu envoyer mail si euh, yeewu leen tfm arobase gmail point com si mail bi da ngeen ñuy jox seen tour seen ay seen expérience professionnelle sinon mun ngeen ñu envoyer seen CV tout simplement ci yeewu leen tfm arobase gmail point com <laughs> ngeen koy bindee y 2 e w u l e n tfm arobase gmail point com. damaa safar non non non da ngay wax ma naan super super j'étais euh, dama nekkoon ci benn grande surface la dernière fois ma doon benn femme rek femme bi ne ma super comme ça koy wax chaque jour donc j'essaie de trouver un autre mot bu bu bu bu bokkul ak super quoi. génial waaw oh, génial bon génial voilà fantastique. bon bàyyi la bàyyi moog semaine bi génial. Euh, génial comme ça ma ma sakkanal mooy quoi génial. léegi euh, ki ñuy wax ki ñu joxe CVM léegi nii on va regarder en même temps CVM génial mu ngi tudd mademoiselle. génial tonton Mac euh, mademoiselle Yacine Niang dernier diplôme 2013 licence 3 mm. comptabilité euh, gestion expérience professionnelle deux mois de stage au PAMECAS alors euh, donc am na diplôme en comptabilité gestion et def na stage euh, PAMECAS lu tolloog deux mois si mën ngeen ko contacter par téléphone ci 77 673 71 39 77 673 71 39 ou par mail mayagito collé arobase hotmail point com. voilà Pape Cheikh deuxième CV bi ki moom mi ngi tudd Oumou son dernier diplôme c'est un master 2 en comptabilité contrôle et audit audit à l'institut des hautes études de Tunis. euh, ses expériences professionnelles. En 2011, elle a fait un stage à la SSGBS. Euh, en 2012, un stage au Crédit du Sénégal, département comptabilité. Et en 2013, elle a fait un stage à la Banque de l'Habitat, Tunisie, département comptabilité. Vous faites que vous pouvez vous contacter au 77 532 24 12. Hadi Satou Djoumdja, Momo Chitop. Voilà, génial. Euh, Khadijatou Khadi Satou c'est ça Khadi Satou Dioum Dia dernier diplôme 2011 licence en management commercial option marketing et action commerciale expérience professionnelle euh, juin 2009 euh, agent commercial à Afrique Management euh, vente de services mars 2010 gérante boutique novembre 2011 février 2013 nekkoon Sonatel Mobile Cash Orange Money euh, mën ngeen ko contacter si vous avez besoin d'elle pour mu liggéey leen par téléphone 77 551 57 38 ou par mail à khadisissé collé arobase gmail point com Pape Cheikh ku bëgg sa CV jàll comme 3 CV yi ñu lire léegi mun nga ñu envoyé mail ci yeewuleen tfm arobas gmail point com mais démb dama jot benn message am ku ma ne soo leen jàllalul sama CV je vais me vexer faut pas te vexer CV yi yi dafa bëri depuis bi ñu ko ku nekk ngi envoyé sa CV donc ñi ngi ci CV mois de mars yi toujours mais yëpp dinañ jàll incha allah c'est pas la peine de se vexer. voilà voilà voilà et puis on vous demande ah, ñu ngi leen di ñaan ku ci euh, annonce am jàll ci yeewuleen bi ba euh, tubaarkàlla nga am liggéey wala stage euh, n'hésite pas nga euh, yónnee waat ñu email euh, comme ni ngeen ko defee woon juste pour réagir ñun tam ñu xool ni mbir mi am na solo waaw parce que parce que amoon na ku fi amoon à partir de yeew leen mais ba léegi doo ñu woo sax voilà voilà y en a d'autres ah y en a plein y en a plein yoo xamante ni contacté nañ leen ba ñu commencé liggéey ñu commencé stage ah parce que nous aussi on a souvent certains échos ci yenn bërëbu liggéeyukaay yi donc prenez quand même la peine ngeen koy defal seen bopp comme ça ñu mën a xam ndax mbir mi saf na